yaa gars yi tey dama am mbetteel bu rëy rëy dama doon waxtaan ci football di waxtaan ci équipe nationale Sénégal sama nouveau consultant bi di tos leeral ma loo xam ne nii ndeysaan non mais foog yow ma ko woon ci moom. te tey du ma muuma nag damay wax. <laughs> tey ngeen nar a waaru mhm. explication bu claire net tegu ci temps mais toos damay nuyoo gars yi ba pare mhm. comme ni ma koy defee ñoom salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant ànd ceeg sama consultant bu bees bi nga xam dama ko recruter mhm. fii ci euh, Côte d'Ivoire mu ngi noonu mu doon koo xam ne ni macha allah démb muuma la mujjee doon représenté ñi nga xam ne dégguñu mu doon rôle boo xam ne ni vraiment réussir na ko donc <laughs> moomoy ñu ngi ñu <laughs> ci geste bi nga xam ne tos mu ngi koy def mais nag tey solo muy lan profil joueur équipe nationale Sénégal seetaan nag sànq dañ doon wax ba ci yàgg rek mu feelu mm-hmm. këf ma mm-hmm. wax ci loo xam ne Iliman Ndiaye man bàyyi ma kon xel non dama tiit dama tiit la ma doon añ dama ko wujjee teg <laughs> wax ci Ismaïla Sarr loo xam ne ni c'était vraiment loo xam ne ni mm-hmm. neex na dégg man nag dinaa wax ci Palassane Gueye profil am wax ci Sadio Mané mais moom dama koy bàyyi laaj ko Toch Iliman Ndiaye mhm. seetlu nañ ne saa yu duggee mhm. def différence mhm. sénégalais yu bëri ñu ngi réclamer pour mu titulaire mais tamit Ismaïla Sarr mi nga xam ne moo xam ne moom la Iliman Ndiaye di remplacer di recevoir ay critiques yoo xam ne ni fu ne lay jógee te man damay sentir ne mu ngi performer bëggoon naa nga leeralal sénégalais yi mbir yi demee nan la naka la waaw xam nga sénégalais moom à chaque fois comme ni ma koy waxee kii def résultat la ñu a gis maanaam kii dugal équipe nationale bi équipe la te équipe football quatre onze contre dañuy liggéey lii kii ñëw continuité Ismaïla Sarr boo gisee elam laa la wax bu fa taxawee quatre-vingt-dix minutes bu ko fubalee wala mu fubal soixante minutes jàppal ne soixante minutes yëpp day daw la waa el bi yëpp mhm. li ko dalee ci milieu terrain seen latéral bi parce que seen attaquant bi day wàcc ba suuf bi récupéré bal bi di dawloo gars nii épuisé boobu mu leen di épuisé mooy latéral bi waaw épuisé boobu muy épuisé man du ma wax latéral sax mais couloir en même temps ci benn nit moo koy def épuisé ba mu leen épuisé mooy laisser espace boo xamante ni bu Iliman Ndiaye duggee ak fraîcheur am day fekk ñee ci coono boo xamante lu mu laal day nooy buñ nekkoon cent un la ñuy doon buñ nekkee cent un la ñuy doon te Iliman boobu fekk na nekk na cent exemple boobu dama la koy jëlal ci Lamine Yamal premier match am bi muy toj biir Barcelone boo xoolee Ousmane Dembélé mhm. dafa ñëw def match boo xamante ni c'était époustouflant te Ousmane Dembélé deful sax passe décisive ci match boobu mais Lamine Yamal bi mu ñëwee ku mu crocheté daanu maanaam daa ñëw fekk dafa ñëw fekk foofu mooy nepp foofu foofu liggéey liggéey bi ñëw bàyyi laaj li ci des yóbbu ñu da ngay tamit mhm. noonu lay demee bu fekkoon tey jii nii Iliman Ndiaye mooy démarré mhm. mun na épuiser défense beeg couloir boobu noonu it mun na ko épuiser ki nga xam moo di Ismaïla Sarr su duggee liggéey bi day yomb ci moom def li nga xamante ni kon su ma la déggee Elimane Ndiaye. waaw Ismaïla Sarr moo koy liggéeyal. foofu continuité la ñoom ñaar. ok ku ci nekk mën nga titulaire sa morom bu ñëwee ray équipe. continuité. loolu mooy mot bu exact bi. Mhm. maanaam Ismaïla dafay liggéeyal. voilà bu duggee mottali. mottali wala soit bu Elimane titulaire liggéeyal Ismaïla bu duggee. mottali jeex na loolu la ok c'est intéressant. Mhm. ma leen laaj gars ci commentaire yi nan ngeen gisee. analise bi nga xam ne tos jot na koo def. ci profil kookee di Ismaïla Sarr ak Iliman Ndiaye. Ismaïla te Ismaïla bu ñu ko yabee léegi la. waaw nee naa la bi Sadio Mané blessé moo boot équipe bi mondial. moo dugal. moo paas. démb coup franc bi ñu njëkk dugal sax. moo moom moo créé coup franc bi. deuxième match def na paas contre Cameroun. à chaque fois day def yéen ay résultats mais nit ñi duñ ko gis fekk tojoo kër gi Sénégal duñ ko gis c'est vrai que nag raté yi nag xaw na kii nii. mais loolu moom manque de sens lay dal. ñëpp lay dal manque de sens. mais aussi mais aussi si raté yi tamit il doit travailler ah, prendre ses responsabilités daanaan la da koy gérer. mais nag gars yi. li mm-hmm. duuf ci nag li xajandoo ci ci tey uniquement ñaari profil yooyu lañ indoon. Mm-hmm. dinañ ñëw ci Sadio Mané Pala Sane Gueye Edouard Mendy et tant d'autres joueurs. la wax ceek sama <laughs> consultant le mouvement international. <laughs> gars yi ma leen laaj ngeen gisee duo bi. am leen jàmm bàyyi xaw kii mooy loolu. après incha allah. bàyyi daa añi daa añi. jaamu ci yéen gars yi am leen jàmm gars yi ba beneen yoon. habituelle. Ils ont volé le drapeau de la colère au bout du coup. Bon, en attendant que on les achète, on va donner le message de la semaine et puis on va... Não falar assim, não falar assim, não falar assim, não falar assim, não falar assim, não falar assim, não falar assim, yaa gagné. ok. <laughs> non mu ngi nii mu ngi nii eh, Seex boo ko si Seex boo ko si génnal. Yes! C'est bon? Les gars, jàmbaar dugalal photo bi dugalal photo bi am na ñun kese Instagram lañ ko dugal wala eh, dafa kër waay waaw gerte gi mel ni no prix waay no rek ko waay dañ teel a ñëw waaw eh eh eh bu dugal Cheikhou de bu tàggee Cheikhou de dafa perte ah, bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg laay yow rek laay topp. laay bi wax. mais waa ji tàng na. mais waa ji tàng na. Eh, eh, eh, mais police. ay Ensayo. Ensayo. Ñango. Ensayo. Ensayo. Ñango. Hermane. Hermane Mane. Al Nasser. Tapi. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais pas, pas, viens me dropper ça. Et Pape le Marseille. Eh Pape, drop-moi ça. Eh Abdou. eh Seexu boo ko si Seexu boo ko si génnal. Yes. C'est bon Les gars jàmbaar dugalal photo bi dugalal photo bi waaw ñun kese Instagram lañ koy dugal eh, de waay bu dugal Cheikhou de bu tàggee Cheikhou de dafa perte ah, bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg ah, 2010. déggu ma 2010. léegi kon benn crépé la ñuy njëkk a dégg à part avant yow. <laughs> jàpp te ko yónnee mu invitation loolu non non Sadio Dieng moom indi fii mais Amadou moo waroon gis mais dafa dafa dafa dafa dafa naan tànn mu ngi ñëw waaw waaw maa ngi xool xaam xaal situation bi ba xam euh, comment dirais-je damay dem fële ou pas wala ba xam damay dem fële bu may demul fële ma def la suñu avant rek